mbokk yi premier combat de la soirée journée Ama Dia production Lakalé ak Bada 2 Lakalé mbokk yi moo ñu ginnaaw Bada 2 moom la ñu jàkkaar lool ñoom ñaar ñëpp ngembul xonk loolu ngemboo waaye Lakalé am na benn euh, moos bu ñuul bu mu ca teg Bada teg na ca moos bu zone ñoo ngi xoolante ci biir bët laka lee ngay déplacé wu xale yaa ngi lewaatu wala boog ñoo ngi xoolante ba tey dóoranteegunu jàppanteegunu lewaatoo bi yàgg na arbitre bi sifflé na arbitre sifflé waat na mbokk yi Lakalek Bada 2 Lakale door na léegi Lakale Bada 2 lakale daa mel ni daa bëgg a dem lakale ak Bada 2 lakale Bada 2 Bada 2 wa ngay dóor Bada 2 lakale lakale mooy de eh yee tey mu dee lakaleeg ba rëdd waaw bëgg naa loolu ci làmbu xale xeex ba noppi doog a Modou Lo door na léegi abi sifle waat na ku ci nekk jox na la benn avertissement nee na bërewu leen ñu ngi koy waxee possibilité possibilité lañu wax ah, Lakkale door na ko léegi Lakkale ba na deux Lakkale nga koy bëgg a lakkal Lakkale door na léegi ba na fayu Lakkale ba na eh Bada 2 bu ñaaree nga wàcc de Lakalé Bada 2 Lakkale daa mel ni dafa bëgg a xeex ak moom. Lakkale Bada 2 ñooy xeex mbaa duñ ko dóomu daanu. Lakkale bëre deux Lakkale gi dox ci kawam abi daate na jox na bëre deux deux avertissement taxawoo taxawal nga bëre bëre deux jàppante nañu Bara 2 plaqué na ko mu bañ Lakkale plaqué na Bara mu bañ Bada 2 daan na la xale Bada 2 daan ko la looloo def noonu ba juum man sama papa lu ne ne def barki sin Bamba xaalisam lu mu liggéey vidéo la day fanaan suba ba ngoon di di xoole barki alxam nelaw kon kii dama ko war a dimbali nan ma jàppale man war maa bëri premier ama jàpp naa ma moom jàpp war maa bëri premier di wax na gars yi ñu may àndal gars yi sonn nañ si. mais gis nañu da ñëwoon. kon loolu juum la woon. non ma du ma xeexal gars dama mën a bëre. mais da ngaa ñëwoon fii sa diggante ak Aziz Baboy mu daan la kooku daan si ma na ma mën a bëre. teel xool ñu ma daan ñaa ñëpp ay poids lourd lañu kon man du ma nit koo xamante ne mooy sama troisième komba deux victoires benn défaite damaa juum te gars yi nañ xam ne damaa juum dama nekk dama bokk si doomu mbëri daa nu ma war a wane waaw ñu wax na gars yi nañ ma jàppale ginnaaw raay nañu jàppale ñun ay jàmbaar la ay xale lañu wallahi sama aasa mootul laa la ama ja ñu loolu sama licence bi laa sama aasa ma xale bu ndaw amaana na daam topp sama ginnaaw loo mi boo xoolee naan lu waaw amaana daal luy dar mag boo ñaa wala ñuy dar sama sama mag boo ñaa ñoo may dar ki waaw kii kii boo ko xoolee xam ne kii moo doon dar boo ñaa waaw ci sama papa la moo ma jur kon su ma daree damaa war a wane jàmbaar sama papa Bourkhane tamit jàpp na si wax naa man lu ma dégg. fay jeex na jeex jàmbaar lañu. su ma turandoo tamit maa ngi gërëm bu baax di gërëm waa ginnaaw daal jàpp nañu si bu baax a baax. non échange moom. tex jël. doron daw. waaw ah, léegi dafa leer. tex jël day leer. barke Sëñ Fallou Mba. échange ku dul jël du ma bëre ak moom. waaw du ma laaj ne sama benn génération sama génération ku mu bëgg rek mën naa bëre moom. waaw man yaa jël bi waaw <laughs> yow Matou yow moom jàmbaar amaana boo ñu gisante te kor ma fekk wax ma loo xam ne après da ngaa dem de mu neex ma trop waaw man ak yow la quoi yow moom jàmbaar nga ma da ngay jàppale booy ngay jàpp damay dégg ni ngay ni ngay mo ni ngay collagé booy xamoon pour ñu pour ñu bëre di di di rey sa bopp parce que sëñ Fall dama la gis bu baax a baax dañuy gis dañuy lirante essai xam nga lu ma la wax bu baax kon yow Matou yow jàmm si yow jàmm si yow maam jaara faam jàpp na si ah? Ah, waaw waaw maam jaara faam waaw mooñ defaral mooñ defaral boo seer maam jaara faam su mel ne Pape Ñambe Waly Ndiaye tam jàpp na si ak sama grand altigo Erfa Ndiaye abit baa ngi wax ak ci diggante Baye Tapha Tine ak Mame Balla yi moo ñëwoon ginnaaw Baye Tapha Tine la nu jaakaar lool eh Mame Balla door na léegi Baye Tapha ci kawam jàppante nañu Mame Balla numéro 2 Baye Tapha Tine Baye Tapha Tine moo teent bopp bi Baye Tapha ko dalay mbot bañ na eh Mame Baye taxaw Tapha Tine ci wet gi mu déclenché ko mbot Baye Tapha moom Baye Tapha Tine Mame Balla Baye a àgg nangoo dina la takk de Baye Tapha takk na Mame Balla nu muy def nu muy def da koo bëgg a tegal 16 wala lu a def da ngay daanu da ngay daanu roof na xataa bi ba da bañ lii lu def nii eh, Baye Tapha Tine Mame Balla xale yaa ngay bëre atul de atul de atul de de da lay de Baye Tapha Tine Baye Tapha Balla Mame Balla fan la àgg sori de Mame Balla benn loxo ba boo ko bu la takkee tee nga dee loolu nag da daanu oh Mame Balla daan na Baye Tapha boog arbitre àtte na waaw waaw Balla daan na Baye Tapha lan la arbitre bi wax. lan la arbitre bi di wax lan la arbitre bi di wax arbitre yaa ngi consulté wu seen biir waaw Mame Balla numéro 2 daan na Baye Tapha Tine Mame Balla numéro 2 daan na Baye Tapha Tine Ouzin nuyu naa la. Ouzin fay naa la. daa mel ni da nga namoon parce que puus yi nga gis nga tuus nii mooy. waaw namu làmb. làmb suñ deret la quoi bilaahi. naka nga àndee guy. waaw ça indi ko ànd indi ko indi wu xarit indi wu doomu nday ndax guy gi làmb boolewuñ maa moom ñoo foowandoo ba ñuy nekk xale yaayam dafa ma doon wax man guy gi sama nduroo waale la lu mu mës a am ci teraanga war koo jox guy gas guy gi war mën na xañ guy gi jox ma ñu bokk lépp guy mooy seul mbër moo xamante ne mën naa ne mën na sol sama yére mën na sol sama daal bu duggee sama néeg lu mu fekk bëgg ko da koy jël yóbbu. mais gëj bi mu gëj ci làmb est-ce que loolu du feeñ tey. non mën naa bañ a feeñ ndax lu mu gëj gëj ci làmb chaque jour mu ngi dund làmb ndax bëri simple bu ma dem mu may woo booy maa ngi lay suivre maa ngi gis commentaire yi maa ngi def nii ñëwul mais xolam ak xelam lépp a ngi ci biir làmb kon génnul làmb. kon tey naka waaw fulla ak fayda rek ñëw def fulla def fayda ndax ndam moom mu ngi ci loxoy sunu borom mais ku ne sañ ngaa ñëw ca bis def ci fulla ak fayda lu la suñu borom may nga xam ne loola mais ñu ngi koy ñaanal yàlla ndam lu sedd guy ndam lu gën ci moom. lan moo koy xeex wala bëri. lu mu def arrangé na ko ndax xale la du ma ne ko defal lii wala bul def lee mais na ñëw bëre fulla ak fayda bu xeexee arrangé na bu bëree arrangé na ko. bi daa bëgg lu yomb du liggéey day waaye nit di posé question ñëw bëgg a dugal mi ko. liggéey nuyu naa la. mais Wassare fay naa leen. kii dañoo yàgg de. sa waay la. ça fait longtemps. mais baaxul rek ànd ak liggéey ànd ak ñi ma war àndal. ñaan yàlla sunu borom suturaal may may ma te liggéey naa loo xam ni. bi mu mag ma ko lu ma wax du ma jaaraat. non maa ngi tuuti rek man tuuxoon na exclusivité bi dafa maa rëcc. koy jëleeti. ku mën a bëree ni man foo kay jëleeti. ku mën a bàkkoo ni man foo kay jëleeti. ku neex a daanee ni moom mu ngi ne toog kon lu ma wax du ma jaaraat. liggéey def li ma war a def wàcc samay tànk toog xaar ko bu arbitre bi sifflee mu ñuus ko pare jël alaaji mbay patron dégguma. bu arbitre bi ma ñuus ko pare jël alaaj may patron li laa wax ba leneen ñëw. mais géej bi nga géej ci làmb lan moo waraloon géej bi. waaw xam nga fi dama fee ñëwoon sama combat ma sama combat ma contre Mbaye ma ñëw affaire xale jàpp ma ma ñëw ñàkk te làmb boo demee ba nit ñi la bàyyi xel boo génnee ñu naan diw diw diw am na yoo xam ne la ci laa ànd ak samay mbokk géejawaay laa nekkoon ma leen di nuyu di nuyu guy gi di nuyu waaye ma ñibbi ñoom Modou Lo ñoom Lac Ramassène ñu ngi nii ñoo ma dar ànd ak man ñëw waaw loolu taxoon ma gëj mais defaru naa alhamdulilah quoi. kon lépp a naa. surtout ñëpp bi nga gëj ci làmb est-ce feeñ tey. non dañ maa mise à jour pour ah, waaw dañ maa mise à jour. maa ngi ci version PS bi fi mu toll nii 16 bi. maa ngi ci version PS. kon tey a la borom ma dóor mu daanu. dóor daanu meen. waaw. loolu dama ci commenté rek. à suivre. Boy Malick. waaw fay naa la. loolu. waaw maa ngi sant yàlla baax. ah. tey waaw sama doomu ndey waaj nañ ko dañ ko war a waajee di ñaan yàlla suturaal ñu may ñu ndam. waaw. foo parce que fan yii dafa mel ni déggoon naa nga naan pare nga. non bi moom naaj moom lambu laay xaar sama fan si namu nañ lambu nama ma gaay jox combat ma ñëw neexal arène bi. sa diggante ak ñan. parce que tamit boobaa ak léegi gëj ngaa bëre say morom ñu ci bëri nag wàcc nañ la. instant waaw loolu dëgg sama morom yu bëri wàcc nañ ma fi du sama coobare nag ndax nattu la bu bi teg quoi mais maa ngi ñaan yàlla rek gars jox ma combat ma ñëw waat sama bopp comme ni ma ga yi xamee. kon fi mu loo koy taam. instant bi kuñ ma jox baax na yaaw jaal tax bu ñu ko joxee ma jël. kon léegi nga am ko. waaw bilaay bañu ma dara. ci kanam waaw ci kanam waaw. Idy nuyu naa la. fay. ci loone mu ñëw moytu rek ki nga taxaw kan la. kii Alaaji la. bu baax borom raay bi FM. mu sell sama nit la. bu yiw sama lépp la. waaye ma sa seqee yéen ñaar. non seqaguñ dara nag ndax day wor ah. dañoo am dañoo seqoon benn jaay booy. buñ doon seeti benn gel mu jaar si suuf war ma. bu ngeen gel tamit naka la ko ay góor yu séex. gel la woon ko. mais séex tamit daa bëri façon de bàyyi loolu bàyyi loolu ba Baba Thiam Baba Thiam. Baba Thiam nuyu naa la ba pare. maa ngi lay fay mais fi may wasaare loo fi wax day wasaaroo moo tax damaa bëgg nga déglu ma. yéen ñaar da ngeen séexoon gel. Ouzin ci boppam mooy koo xamante ne nii moom ay yëfam moom moom daa doy waar. jàmbaar loolu. mais Ouzin Ouzin sa liggéey barke Mouhamed ñëpp a ngi koy rafetlu xale yi ni nga leen di génnee xale yi loolu dafa baax man kay lenn rek laa. ma dóor lenn rek laa jooy ci yow mais daal ku baax nga <laughs> waaw. Oh, loolu kii kii benn jour benn pël da koo mës a song kott ko akolaat ko ndeysaan bu jigéen commencé ko làq yaakaar ni pël la boo gisee pël nga koy teg de séeréer bu mag la. Maodo séeréer bu mag la. kon kii digganteem ak cere daa yàgg. kii <laughs> loo ko tegal lu cere. <laughs> Ama Dia numéro 2 mbokk yi ak lan ak kan waay eh doon kuubu jël Ama Dia numéro 2 moo nekkee nii. Ama Dia numéro 2 Ama bu 50 Ama ko léegi kuubu dal dooraat na ko Ama Dia numéro 2 daw na jàpp ko Ama Dia numéro 2 Sa Thiès bu 50.

ama bu cinquante ngay dóor Ama Dia numéro deux mbokk yi moo ñu ama bu cinquante moo ngeem boo ngeem vax bi ama bu cinquante fa mu jàpp baax na de Ama Dia numéro deux Ama Dia de moo tëgg combat boo daanoo de dañ daaneel ak Ama bu cinquante eh Ama Dia bu cinquante fayu na Ama Dia numéro deux Ama Dia li nga def ba wóor na Ama Dia li nga def ba wóor na oh, Ama Dia numéro de Ama Dia ngay dóor Sa Thiès cinquante wala Ama cinquante. Ama Dia ngay dóor jël na tànk ba Ama Ama ngay fay eh. eh. Ama cinquante Ama Dia oytul Ama cinquante fàq la de. Seydina moo gën ci reporter yi xam nga Seydina. borom Bila looy def borom Bila TV. da eh, yaa ngi xeex ba doomu daan du ci am dina sot suuf ba ama 50 Dia ama 50 da koy daan kaaw daanu na daanu na daanoogul wër na ko ndomb da daan abi daate Ama Dia numéro 2 ama 50 arbitre sifflé waat na Ama Dia numéro 2 ak Ama 50 xeex nañu léegi xeex bu neex xeex bu sax Ama Dia numéro 2 ak Ama bu 50 Ama Dia ngay dóor e ama 50 li nga maye est-ce que war nga Ama Dia ngay bëgg daanu waay Ama Dia ngay bëgg daanu Ama Dia tey nga dee tëdd Ama Dia nga wax si ma jël. koroog nee na ma damay déemee du ma daanu. barke alxuraan. nee na ma koroog damay déemee du ma daanu. wóor na yàlla loolu la ma wax. Ah. billaahi. mais mais tey booy bi li mu bëree xeex nee naa la kii moo dàq bëre rakk ji. Ah. barke alxuraan karim dafa bàyyi woon bëre maa ngi indiwaat si làmb. wala loolu wóor na yàlla non booy bi ndaanaan la. mais lan moo waral mu tëral sa bopp. dama daan topp mbapat. jig nga ko mais sant yàlla rek. jig nga ko nga sant yàlla sant yàlla. muy dooram victoire muy dooram victoire. mais sant yàlla rek. mu ne moom nga yéen yëpp day yéen a yéen ñëpp a bëri jom. ayca ñu dem. Thank you.

yaa ngi moytu petit volcan na léegi petit volcan rek Petit ee eh, Aigre xeex na Petit Volcan Aigre moytul Petit Volcan boo moytul bu la dóoree buntu feeñ volcan ak aigre petit volcan jàppante nañu ñoom lu mu ko bëgg a def Aigle ràcc na Petit Volcan ko bëgg a takk Aigle Aigle déclenché na mbot ma Petit Volcan ko Petit Volcan ak Aigle Aigle mi ku saf la muy ndural Aigle ak Petit Volcan Petit Volcan bés <laughs> nga gis lu doy waar Petit Volcan ak Aigre Petit Volcan Aigre jox na la wet gi daa bañ a dem Petit Volcan ak Aigre di volcan ak aigre petit volcan aigre daan na ko Petit Volcan daan na Aigre oh Petit la chérie de Bary Sine. waaw. noo préparé combat bi. ah combat bi. Uh-huh. xanaa ànd samay mbokk rek. Uh-huh. di sant waa Bary yëpp. Uh-huh. di sant sama. benn bay fay aw ma fayam. waaw. benn bay fay aw ma fayam. sant suñu ménagère écrit. di sant gars yi yëpp. waa Bary moom aw ma seen fay. mention spéciale maay sant ñëpp. préparé combat bi. waaw xanaa ànd samay mbokk rek. Ah. entraîné kese. xanaa ne ma ñoo ngi sa ginnaaw. bul tiit dara. kii kii moom. Ah? ah. combat bi moom dama kaa woon moom li ma liggéey nekkul pour kii. nekkul pour kii di sant ñëpp nag. surtout ma waa Bary aw ma seen ah non non waa ñëw mu indi ma xeex ma xam ne li muy indi gëmm ko dag yàgg-yàgg day ñëw waaw tax ma xaar ko waaw ma xam ne su ma ko jàppee lamb ji jeex bilaay walaay mais waa baari ah may sant ba waa baari ñëpp ñu xam ne seen doom a ngi nii ñu ñaanal ma te jàppale ma man bog naa li may def bilaay walaay te telewuma ko nañ ma ñaanal waa Ngunjaan ñoom ñëpp waa Diofior ama seen fay billaay walaay waa Jaxaaw ñoom ñëpp waa waa asalem waa marché asalem aw ma seen fay billaay walaay dañoo jàpp ci biir yi xam na ndax abulaat abulaat aw ma fayam jàpp na si combat bu baax a baax Cheikh Abdou Abdou Khoudos Cheikh Abdou doomu jaay jàpp na si combat bu baax a baax. billaay Baye Baye Al aw ma fa yam. di sant Boucar Seck Palmarin Boucar Ndamal Daaru aw ma fa kooku dañuy dem muy teg bu may teg lu métti. billaay waa saapu saapu ti volkaay aw ma seen fay. jërëjëf billaay walaay. ok sama grand frère rek. non nga ko doon wax la non dama ko dem tey fu mu ko a yóbbu xam ku ko sax bu daaneel ko soo non combat bi non combat bi dina yomb si ñun. booy bi booy bi saf na de. non parce que kii liggéey liggéey lu tax mu war a moom. mais est que diisuñ ñoom ñaar poids yi. balaa moom diisul moom. kii moom xaw ma entraînement kii ma ñoo. mais kii moo gën a a oyof. ah ah ñun kii moom diisul parce que ñun moom lañ entraîné moom lañ kontaan xam na xam nañ ñu nekk si moom. combat bi tey naka la war a bëree xeex wala bëri. non xeex ak bëri bëri doo la ñu wax xeex ak bëri. Hmm. waaw. am nga yaakaar. moom dama rek ak Sëñ Tuuba ah. leeram naa doom bay la naa yee waaw wasaare lamb ci yàlla tey naka nga ñëw yée tey kay nu ma ñëwee daam doole Fall barke Serigne Fallou Mbacke booy bi yaa moom tàng na kala ah guy gi xëy na waaye day xaar parewul de war na sëñ Fallou parewul lam la waayal sànq a neex a sëñ Fallou parewul te xaw dox nga mën a bëri barke sëriñ Saliou Mbacke bi nga ko xoolee état de forme bi moo tax nga pare. non dafa pare wut. maa ko gën a pare. man damaa entraînement entraînement 2018 ba tey maa ngi entraînement di jooy. nga gëj a bëree. 2018 alliance Birame laa gëj a bëreel. boobu ba léegi boobu ba léegi laa gëj a bëree. am combat ak 12 ans dal ma ma sant yàlla boobu ba tey ma siisu nag di entraînement tey laa ko nar a yel loo kon tey bés jaar guy gi tey lay jaar di di ba tey. te nag na tey dañ ko mise à jour ndax guy écurie guy gi la nekkoon jóge na fa moo ngi Malika dañ ko mise à jour. moo tax bañ ko mise à jour la affaire bi càng instant yii foog ñu dabal ko dañ ko côté saa ah. ba tey pareegul. kër baax na. di sant nag suma waa dëkk waa Bayla dañoo jàpp si combat bi sama dëkk yaay waa Thialane parce séeréer laa quoi dama di séeréer di Joola. man su ma mënu bëri dañ ma war a rey barke Serigne Fall Mbacke ànd ak sama doomu ndey Alaaji Mbay dogo sama booy bëgg ma. nee na nag bu la daanee Alaaji Mbay lay jël mooy sa patron. day xaar moom xam na ku ma war a jël man buuse laa soxla. waa li nga wax barke Serigne Fall ma xëy leen di sama combat ak moom taxaw kon nag daam ko soxla mais du moom mi yéen ñaa ñëpp daal ku ci nekk day yor sa poulain. non action la mais buuse bu yeboo nga xam ne maa ngi si kawam de du ma kii. Papa Baldé bi xale bu mën a bi bu bëree bu neex bu ko bu neex. waaw waaw dina am dina am dina am incha allah ndax jaam ak pexem yàlla ak boo boobu ba mu ngi toog quatre ans bëriwul kenn dégg ko ci dara lu ñàkk fayda te àdduna moom comme que dañ fiy jugee dignité rek am solo waaw te mu ngi gérer dignité am heure bu ko yàlla joxee combat dina ñëw bëree ko ci fulla ak fayda incha allah. ñu ngi ci incha allah wax na ko keroog nee na leen bombardier moom. nangu na ni Bombardier moo koy may chance parce que Bombardier li def ci làmb neexuta neexuta naa table def na lu ne ci làmb ku bëre Yékini bëre Mouhamed Ndao Tyson sama idole Tyson yëngal dama ko bëgg torop torop daa bëri projet man projet ci laa yëngu financement laa amagul mais dama bëri projet Tyson laa bëgg. dafa fàttali ne Bombardier 25 décembre 2002 roi des a la ko waaw mais Tyson tamit dugal na Pikine roi des arènes Eumeu Sène dugal na fa roi des arènes ñu roi des arènes namuñu nga incha allah ñu ngi ñaan yàlla Ama Baldé indiwaat ko fa bu soobee yàlla te dina am comprendre nga parce que dañ nañ ay coono yu toll noonu ci làmb xam nga di gërëm ñi nga xamante ne ñooy samay xarit di gërëm gos droit borom kër da baax min di service am dugal rapport def ci përëm rek waaw ma koo bañ a kooku day liggéey bëgg ma liggéey përëm kooku dafa bëgg ma liggéey dafa bëgg nekk sama xarit ñuy ànd àndu dëgg ànd fulla mbokkum day njoogu géy yaa ngi dégg di gërëm bu baax Xaarim Diagne di gërëm Tafa Diop international la naa ko trop mon frère de sang di gërëm Jéeri Basson di gërëm Cerno Ndom Ba Rama Maki Paulis Paulis Paulis Paulis Mbaye am na am naa beneen Paulis Paulis a ngi nii di gërëm Souleymane Mbaye sama rak Aline Diaw ñaa sama nijaay nijaay namm naa la fiyee eh? nijaay usine technique numéro 2 mbokk yi moo ñu woon ginnaaw. Ngaylum numéro 2 usine technique jël na Ngaylum Ngaylum numéro 2 mbokk yi moo ngem moo ngem lu weex li usine technique moo ngem ngembal vax bi jàppante nañu ñoom ñaar Ngaylum numéro 2 ak usine technique e eh, Ngaylum lu mu bëgg def. wala boog usine technique lu mu bëgg a def ngay lum da lay zongale bañal. ngay lum numéro 2 ak usine technique usine technique lu ko bëgg a def takk na ko da koy caxabal bañ na ngay lum bañ na usine technique ndànk caxabal na ko daanu daanu nga lu xew lan moo xew. Ngéylum ak usine technique abit yaa ngi consulté wu daa mel ni jël am na de wala déet ku daan waaw waaw woowaat na leen ci diggi géew bi Ngéylum numéro 2 usine technique technique eh usine teg ñu door na léegi ngay lum ngay mbëkk na ko waaye xanaa bi di gisuñu lii kenn ñemewu koo wax de fi mu toll nii ngay lum numéro 2 technique. Usine Technique door na léegi Usine Technique ngay lum Usine Technique ngay lum numéro 2 Usine Technique dooraat na ngay lum Usine Technique ngay lum te am nga client de usine technique taxabal na ko da koy daan laay lay la laa kaay kaay kaay kaay kaay kaay daan na ko jël bu rëy oh usine technique daan ko laay lay la laa mbaru bas la de mbaru bas fa daan na usine technique numéro 2 mais si technique li nga bëree lu doon. affaire yi man borom technique bi. nañ ma jox gars yi nag ponkal yi. non yow kay fi mu toll ci ponkal yi nga wax. ñi yëpp maa leen mun barke rasulaay nan ma jox ponkal yi mun bu. waaw. ñu naan du leen waaw mais nag affaire bi noonu la mbor bu ndaw warul préparé. chaque jour daa war a pare. doon nga ma wax ne na avance ñëwee bu avance ñëwee moo ne sama bopp. waxoon naa la ko keroog. billaahi. ma jox gara ak gars rek. mais booy est-ce que xeebu la woon. non moom damaa xeeb te xamuma. damaa xeeb te xamuma billaahi. ci gars rek. na ma jox ki teg grand combat bi. grand combat bi nañ ma ko jox. jox leen ma grand combat bi <laughs> ma bëre ak ku ci daanu ak ku ci daanu yëpp boole ma ko joxe ma bëri. santal gërëm. ah. maa ngi bëgg waa Dalifort ñëpp di tamit waa Jaxaaw bu baax a baax di leen woo nag di leen naan bu ma amatee combat nañu ñëw jàppale ma ndax man amuma jàppale bu ma amoon xoolal lii kese moo ñëw bu ma amoon jàppale mu gën a baax bilaay maa ngi woo ñëpp di bëgg ñëpp di leen ziare yéen tamit bu baax a baax ah ah non kontaan ci waa jëli bi baax a baax a baax a baax di ñaan nag Potignan ah, mu am ndam maa ngi ko ñaanal bu baax. bilaay waaw noonu la waa tamit merci.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 eh Petit Niang ko Petit Niang door na général Petit Niang Koba général eh, ko Koba lu muy def nii Petit Niang Koba général Petit Niang Kooba Général Petit Niang dagg na lewaatoo taxawaat waaye mbokk yi Kooba demagul doogul jàppagul Kooba ngay lii ba Petit Kooba Général Kooba mbéb na léegi ko waa Kooba ana gardam bu ñeentee du baax de Petit Niang Kooba Général Petit Niang dooraat na Kooba Kooba sa garde bi ni mu ubbee ko dafa yaatu Kooba door na Petit Niang eh Petit xeex na moom combat ak Petit Niang numéro 2. Petit Niang Koba. Koba daa mel ni xeex bi arrangé na ko.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 ba fekkee sa kasa alaaji baaba jàmm bu baax Thank ah, you. janq ci loo ne. Ah, mais tey nan ngeen indee waaw voilà avant tout d' ñoo ngi nuyoo di nuyu waa département Kër Massar bi yëpp rawatina waa Benno Bokk Yaakaar. vraiment ñun ñu ngi ñuy woowee Hot Girls nag ñu liggéeyal ministre Amadou Hott nekk si kanamam nekk si ginnaawam vraiment donc euh, mu nekk suñu leader. madame Hott aussi ñoo koy sant di ko gërëm ndax mooy suñu mareet moo ñu dooleel jàppale ñu voilà donc nag tey bés bi mu mel ni ñu tuddee ñu drapeau. tànn ñu sepp ñu mu ak mu nekk nag fierté ñu am sa contentement bu rëy voilà loolu moo tax nag ñu ñëw tey ji indi suñu drapeau voilà merci beaucoup bis bi. ban hmm. yëg ngeen am bi ngeen ñëwee. ah contentement rek parce que bis bu toll nii vraiment nit bu amee reconnaissance tuddee la lu mel nii doo def lu dul kontaan voilà xëy na nag dañoo nekk ci campagne. Code yi ins bi ñi ngi accompagne ministre bi sur le terrain mi def ay porte à mais ne kon yaakaar naa ni fii place yi des day fees dell ndax Code Girls moos ku leen xamul dégg nga leen yaakaar naa ni yëppal ñoo fay bës ñoo fay coow. ngeen def Amadou Xot rek. ñoo def nii. ñoo ngi kon rendez-vous. <laughs>

diggante Baye Tapha ak Canta bu Yoff Canta bu Yoff moo ñu féete à gauche Baye Tapha Tine moo ñu féete noonu la bul ma bul ma bul ma rectifié bàyyi ak Canta bu Yoff Canta bu Yoff moo ngem boo ngem bu zone bi Baye Tapha Tine moo ngem bu gris bi moom la ñu jàkkaar loolu léegi ak Canta bu waaye Tapha Tine door na léegi eh. atul canta atul waaye Tapha Tine a ngi seeral la pataake ba eh canta door ko léegi jàppante nanu luy xew lu mu ko bëgg a def waaye Tapha Tine ak canta eh, jin na ko mu bañ waaye Tapha Tine jin na léegi canta waaye dañoo ànd wëndeelu Baye Tapha Tine ak Thianta bu Yoff Thianta nga dóor dóor dalay daan dalay daan dalay daan daan na la laay lay la laa Thianta daan na ko Baye Tapha Tine daan na la jël bu rëy ma ngay cëppi cëppi bàyyi ko ma ngay cëppi cëppi pareegul ma ngay daw di ñëw ma ngay daw di ñëw ku ci nekk ak sa feem kaay kaay kaay ma ngay njuug ma ngay njuug waaw waaw doole doxul jàmm xale bàyyi noonu bàyyi ko mu ñëw benn demaatel ñaar demaatel ñett demaatel turé waaw waaw daan nga ko jël bu waaye Tapha Tine daan na jël bu ko bett waay. ba di daw. barke Serigne Touba ba ma di daw. dafa yàgg. Lamine. Lamine. Lamine. man lamb dama si barke Serigne Saliou Mbacke kii maa ko mën bi mooy sama sept combat ay armée bu ngeel dama ko daan ay secondes barke Serigne Saliou Mbacke daa nañ bàyyi daaw amul dama ko daan yàggul maa ko daan fii nii daaw le 12 mbëri nañ ma jël mais li ma bëggoon moom dafa rëy man dama mën bëre man dama mën bëre barke Serigne Saliou dama mën ma nag Lamine Lamine ngir yàlla ñëwal seet si ma yokk barki Serigne Saliou Mbacké lamb dama si am jër. wala yow yow dama lay fekk ba sa plateau. armée invité eh, eh, mu ne amul def amul defet benn defet la am Iba Maguette moo ko daan barki Serigne Saliou Mbacké maa ko daan ay Bamar xam nga instant kan laa xaar. barki Serigne Saliou Mbacké le 6 ñu xaar. si Pikine Pikine dama tegoon sama 16 daw mais dañoo daw laaw ngi ñëwaat. kon moom man sëñ Ba am foofu. parce que Serigne Saliou Mbacké. Lamine. Lamine jox ma waay. waaye yi mi ngi noonu. ñu ngi taxawal nag Baye Balla Mbuub mborom Bantamba TV. waaw nga ñëw nag indi drapeau gi nga xamante ne nii mooy drapeau ma Diop Sylla. ma Sylla ma Sylla. ban yëg-yëg nga ma Sylla nag day sunu frère. Bamba tey boo gisee teew fii. Euh, yor drapeau Massila Massila day suñu frère di nit ku baax moom tamit di koo xamante ni doomu réew mi la tamit ngi bay waaram ci réew mi di def lu ci réew mi kon tey Ama Dia bu amee bis bu toll nii tuddee ko ki nga xamante ni moom mooy Massila Massila nag bëggoon na teew xam nga du ñu def lu am ci mbir li tax teew nag mooy jàmm ak pexe yàlla ak dogalam xam am na ay xërëb wala am na noo moom moo ko téye ba mu tëjoo tey moo tax tey nit ñi ñu teewal ko tey ci bés bi indi ko li nga xamante ni moom mooy drapeau bi ñu teew mel na ni monsieur le maire moo fi teew en ñu koy félicité bu baax a baax di ko ñaanal drapeau bi. sa digganteeg monsieur la lan la. non monsieur la suñu nit Massila képp koo xamante ne da ngay yëngu yëngu ci làmb rek sa nit la nit ku baax la Massila def ko ci lu baax la Massila nit ku baax la day wax lu baax day def lu baax ba pare fonk axlu làmb fonk njabootu làmb di def lu baax ci làmb loolu moo tax tey ñu bàyyi suñu lépp ñëw teewul ko ci bis bi jël ko drapeau bi nit ku baax la en tout cas ñu ngi koy nuyu au ko ñaanal yàlla suñu borom yàlla defal ko jàmm jàmm ju bari te defal lu ko rendez-vous bi ci kaw la non rendez-vous bi ci kaw la mais tey bis bu la bis la boo xamante ni bis bu neex la bis bu doy waar ci làmb tey Bamba xale yi non ñaari xale yi guy gi quatre-vingt-quinze doomu bay laa mhm. non tey doomu bay laa bing bang la indi bing bang kenn ak looloo ma yéen foo koy jëleeti a man mais eh, looloo ma looloo ma jooyloo a a koy gis mais looloo ma yéen mais guy gi quatre vingt dafa dégg mais ciy doomu bay laa ci <laughs> mu Thank you. kaay kaay ñu faral jaay Pape Diop kaay ni ñu faral. donc bay la mbokk yi grand combat baa ngi noonu. dox ci diggante doomu Bayla ak guy gi 95 mercredi 27 juillet journée Amadia production doomu ndey Fatma Diala ak Alioune Seye Junior ak guy gi 95 guy gi 95 mbokk yi moo ñu won ginnaaw moo tent bopp wi ngemboo ngembul vert li doomu bay laa moo ngemboo ngembul weex li mbokk yi doomu bay laa bu ñuy xool moo xaw a tuuti poids nee na ma depuis 2018 laa gëj a bëre waaye guy gi 95 moom tamit gëj na fi yàgg na nee na ma léegi damaa jóge écurie ma fadam dellu ma écurie Malika mbooloo top ci ñoom ginnaaw général Malika ñoom booy Malika guy gi quatre a ngi noonu doomu bay laa ci bu suuf doomu bay laa guy gi quatre-vingt-quinze doomu bay laa alaaji mbaye ko andi guy gi 95 nee waaw. doomu Bayla ak Gouy Gui 95. yenn mbër yi woote rek lañ xolo xoolal rëm toog fa mu toog di laajte ni combat bi def borom Fass Mbaw champion la keroog bi fi mujj ñaa bu ndaw ko daan. doomu Bayla Gouy Gui 95. Gouy 95 am na benn avertissement arbitre bi sifflé waat na doomu bay la Gouy gi 95 Gouy gi taxawal Gouy gi taxawal nga jëflante ni ko lëbuy di waxe dañuy jure Gouy gi taxawal nga jure Gouy gi 95 Gouy gi na léegi doomu bay laa tibb suuf suuf su dox ci kawam guy gi nee na dama mise à jour at sama bopp e da guy 95 loolu bu dalee buntu feeñ de guy gi loolu bu dalee buntu feeñ de Gouy Gui 95 Doomu Bayla Doomu Bayla daa bëgg a xeex mbëkk na ko mbëkk na ko ñoo ngay xeex mbëkk amul ci bëre de Doomu Bayla Doomu Bayla mbëkk amul ci bëre Gouy Gui ngi dox ci kaw Doomu Bayla jël na tànk ba ñoo ngay xeex mbaa doomu daanu du ci am mbaa doomu daanu du ci am Doomu Bayla ngay dóor ma ngay dóor oh. <laughs> eh. ñoo ngay jëflante doomu bay laa ngay dóor rëj rëj rëjee mu ngay dóor guy gi 95 ñoo ngay xeex génn nañ saako ya ñoo génn nañ saako ya ndeysaan doomu bay laa gugi 95 am doomu bay la gugi quatre-vingt-quinze guy gi 95 doomu bay waay waay fa ngeen ko tegoon neex na bu leen ko teggi doomu Bayda Gouy Gui 95 ja déet waxal. waa di félicité sama ñetti doom yi doon def ba ku ci mel ni Maaraja Mam Khalifa di ko félicité bu baax a baax sama doomu bopp ak jumelam Satou Dia ak ki nga xam te moom mooy Yoro Siis mais di mais di encouragé Daba Diop sama doom moom it ak ki nga xam te moom mooy Nogay naan leen incha allah déwén yal leen ko yàlla may. non ñoom ay travailleurs lañ c'est <laughs> doomu bay ñoo ngi ci digg géew waaye waaye ko tegoon neex na bu leen ko bàyyi. ko dagg pour lan xale léegi nii da waaw. ee eh, na léegi. doomu Bayla nee na ko kaay guy gi bañ na. doomu Bayla guy gi quatre-vingt-quinze. doomu Bayla guy gi quatre vingt doomu bay laa guy gi 95 waay waay bëre leen waay Est-ce qu'on jaay sa bopp Babacar bu ñu ren sa doq la lay commencé aw aw aw li ma ko xamal yëpp bu ma ko waxee su ma la dinaa yàq sa dee woo nga koo guy gi quatre vingt waay waay bëre leen bu leen ñu fi yàggal xale yi ñëw nañu bëre ci jom fulaak fayda doomu bay laa dóor na na ko guy gi takk na ko guy gi takk na doomu bay laa day génn wala du génn na ko dina jeex am du jeex doole guy gi guy gi doomu bay guy gi 95 doomu bay la guy gi li nga fund ci effort ba bàyyiwul Paris 95 guy kat doomu bay laa dóor na dóoraat guy 95 doomu bay laa. dóor. doomu bay laa ngay dóor génn nañ saako ya troisième avertissement sax jëli benn jël na trois. Gouye 95 doomu bay laa mercredi guy gi 95 doomu bay laa doomu bay laa ngi dox ci kaw guy gi guy gi yaa ngi reculé guy gi yaa ngi jege saakuy de saakuy fekkiwul kenn guy gi door na léegi guy 95 doomu bay la doomu mbay laa cokkaas na léegi guy gi quatre-vingt-quinze ak doomu mbay laa combat baa ngi bëgg a yàgg doomu mbay laa na léegi doomu mbay laa ngay sànni coup bi ci air bi nee na ko taxawal nga bëre. maa ngi dem fee. guy gi quatre-vingt-quinze ak doomu bay laa man damaa mujjee sonn sax nag. doomu bay laa guy gi quatre-vingt-quinze doomu bay laa jokkaas na léegi. waa lii lan la. <laughs> kenn mësu koo gis quatrième guy gi quatre-vingt-quinze am na quatre avertissement soo amaatee benn làmb ji jeex guy gi boo amaatee benn avertissement làmb ji jeex doomu bay laa am ndam ci sa kaw guy gi il faut que guy gi guy gi faaw nga réagir tey nga dee laay tey mu dee doomu bay laa ca dóor naa ko neex na fu ma bàyyi naa fu ma am doomu bay laa guy gi 95 temps ba jeex na. mbokk yi abi bi siflewaat na combat bi dox ci diggante doomu bay la ak guy gi 95 bëri nañu léegi ba mi-temps guy gi 95 am na carte avertissement soo amaatee beneen làmb ja jeex guy gi 95 doomu bay la guy gi dugg na léegi. Don't bring us to the door. guy gi quatre-vingt-quinze doomu bay laa doomu bay laa ngi dox ci kaw guy gi doomu bay laa ngi dox ci kawam guy gi ngi dox ci kaw doomu bay laa génne na ko léegi guy gi ni ngay yoroo baaxul de guy gi quatre-vingt-quinze doomu bay laa guy gi taxawal nga bëre eh doomu bay laa ngay xeex doomu bay laa guy gi quatre-vingt-quinze guy gi boo génnee laa ma ja jeex de jàppante na ñoo ngi xeex oh làmb ja jeex na doomu bay laa kontaanul doomu bay laa kontaanul doomu baay laa lan la. am li doon sant eh. eh. dugalee eh, wa. Eh, eh am li santal yàlla. eh dugal waay yow. kontaanul bay laa lan la bay laa lan la métti lan moo la métti bàyyi ko mu wax lu la métti bay laa. amuñu dama si. ñu jox la ndam ba pare ngay jooy lu xew. waaye bëgguma. ah bëgguma. lan nga bëggoon. lan nga bëggoon. dañoo bëggoon daan. barki Serigne Touba Mbaye dama lu ma kontak. barki alxuraan. ñoom Koli Faye laay kontakal. war na Serigne Fallou. alaaji bëgguma alaaji bëgguma lii bëgguma yow la dama bëre oui ma la bëre waay dama gis ni kii dafa ëpp ci combat bi 95 mais lan moo tax nangul dem bëre bëre bi non xam nga moo tax dañoo toog 6 ans bëriwul yaa ngi dégg est-ce yaa ngi dégg may ànd ak moom bu dégg ba ci ñu ne ko sa doomu ndey dañ koo daan yow tamit dañ lay daan cooli bari trop est-ce yaa ngi dégg combat bi lim ci bëree lépp dafa bari xam nga lim ci lim ko bëree waale dafa bari hmm. yaa ngi dégg autorité yëpp jàppale ko. loolu lay jooy. waaw Thierno Lom ba jàppale ko. waaw gauche droite jàppale ko. waaw mais loolu loolu ngay jooy. ah loolu lay jooy. ah, ah? lu ah, muy jooy. autorité ko jàppale moo bari. Thierno Lom ba da koo jàppale. jaara sama jabar da koo jàppale. yaay Rama Maki da koo jàppale. gauche droite da koo jàppale. dafa jóob xandafi.